man nag damaa bokk ci ñi nga xam ne dañoo gëm ne yow waruloo laaj ñetteelu candidat yi. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéenay topp suñu ay programme tey nag benn responsable APR ki nga xam ni euh, conseil municipal la fële ca euh, département Guinguinéo nekk ca commune bu Gagning kooku mu ngi tudd El euh, Hadj Abibou Ndiaye El Hadj Abibou Ndiaye nag mooy conseil municipal bi moom. dafa opposé Macky Sall ci li mu bëgg ci ni ko euh, troisième candidature amoo droit posé ko amoo droit samp ko man dina ànd ak yow ci lu nekk ba mu des sa sa troisième candidature ñeneen ñi ànd ak yow ci loolu man duma ci bokk tey teewul nag ba léegi maa ngi bokk ci APR maa ngi bokk ci APR waaye eh, troisième candidature moom duma ci ànd ak yow mukk mukk mukk euh, tamit euh, andi na ci diggante sonk ak eh, Mimi Touré wax na fa wax joo xam ni eh, gis-gisam la euh, dina ko indi ci biir vidéo bi waaye daal li mu gën a fesal daal mooy opposé wu ak candidature Macky Sall troisième daal nee na loolu yoon nanguwu ko yoon mayewu ko te démocratie bu deltu ginnaaw la kon man du ci ànd mukk kon bismillah ñu déglu ko. ñetteelu candidat yi bu ma laa ñetteelu mandat laaj bi moom damaa jàpp ne jaadu man fenn rek laa ko teg teguma ko ay constitution ba la mu waxoon yow yaa waxal sa bopp yooni yoon àdduna bi yëpp di boo defee ñaar nga dem waaye may incité ne tey laa gën a nekk biir alliance pour la république génnu ma ci waaju ma génn waaye bokk ma ci ñi lay faral naan la da nga war laaj ñetteel man dama gëm ne moom dafa bëgg a defaraat Sénégal ma bëgg ma dégg mu naan dafay soppi système ay la yoween madame la présidente Aminata Touré système bi li fi nekk ko neexoon kon du bàyyi mais lu tax yéen ñaar mun leen a toog ngeen waxtaan du seen intérêt waaye intérêt réew mi lay doon maa ngi koy ñaan président Ousmane Sonko di ko lancé itam sama ma madame la présidente Aminata Touré loolu mooy kàddu yi nga xam ni le conseil municipal euh, El Hadj euh, Abibou Ndiaye yëkkati na ko jëmale ko ci troisième candidature président Macky Sall su fekkee fësal na ni da koy samp euh, wane na bu baax a baax ni recul démocratie la wane na bu baax a baax ni moom du ci ànd tey du ci ànd ëllëg opposé na ci ak Macky bu baax a baax a baax kon loolu moo nekkoon jàngat bi asalaamaaleykum.